سيدنا محمد فكنا خالص الكرم أمنت من كل ما يخشى عاخبه محمد رسول الله بالكاشف العمم يا ابن الكاشف العمم سيدنا محمد salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. macha allah salaam ustaz laaju tay bi nag mooy. Euh, doomu aadama bi nga xam ni weeru koor ba weeru koor lay julli maanaam koor daal bu ñëwee day mata lay julli mu mel nii man sama doom maane faal ca ngoraan kooku lu ko lu diine lislaam wax ci moom walla iyaazu billaah xaaji njaw julli dafay farata ci bépp jullit bu góor mbaa bu jigéen bu majeur ànd xelam hmm. waaye bu fekkee ne weeru koor ba weeru koor lay julli loolu boroom xam-xam yi dañoo àtte ne ab yéeféer la ndax julli du par saison nekkul ne weeru koor jot na naa julli wala ajjuma jot na naa dem julli ji gisa am na ñoo xamee ne ajjuma bu jot ñu tagalu guddal sikkim réyal kaala guddal kurus dem ca jumaa ja buñ ko defaatee ajjuma la loolu yàlla ñu si yàlla musal xam nga damay faral di wax benn barem boo xam ne moo fi ne mooy kuy julli jullit nga ku julliwul yéeféer nga kuy julli tey doo julli suba naafeq nga du dañ képp koo gis muy jaabante diggante jumaa ji ak këram sallallahu alayhi wa sallam nee na seddal leen ko ab jullit képp koo xamee ne kenn musu koo gis wala nit du ko gis mukk musu yutal suñ borom ab yéefeer la képp koo xamee ne su neexee mu nekk ci li ko neex su naqaree mu julli am naa fekk la sont des règles yoo xam ne du changer ab jullit dafay julli régulièrement parce que jullit du wàcc doomi adama gisa bi nit ki nekkee ab jullit mu majeur mu ngi xelam dara luy gàll gàllankoor doomi aadama pour mu julli nekku fi dafay julli inna salaata kaanat alal muminina kitaaban mawquta julli moo dul wàcc nit waaye bu fekkee ne yow sa julli dafa am traite am saison oui ak saison non su boobaa loolu baaxul boroom xam-xam yi yépp d'accord nañ ne ab jullit bu fekkee ne weeru koor ba weeru koor lay julli tuddutul ab jullit ne weeru koor ba weeru koor lay julli kooku ab yéeféer la mais nekk ci jullit wala koo xamee ne ajjuma ba ajjuma lay julli kooku tam ab yéeféer la du jullit su deewee sax waruñ koo suul ci armeelu jullit yi ndax du ab jullit yàlla ñu si yàlla musal kon ku mel ni Mané Fall na bàyyi loolu baaxut ab jullit day julli gisa julli ku ko màbb dangaa màbb ponku lislaam bu dëgër ci sa kaw asalaatu imaadu diin te yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni yowmal qiyaam suñ borom subhaanahu wa taala li muy njëkk a lijjanti ci doomi aadama mooy julli su baaxee ñu tamponeel ko laisser passer ne ko firdaw see ngi noonu su bonee ñu daal ne ko stop amoo droit dem droite gauche nga jëm bu nit ki buñ xoolee julleem baaxul suñ borom subhanahu wa du xool leneen ci moom du xool koor du xool azaka du xool saraxe du xool euh, dem màkka du xool umra parce que yàlla dafa am ne su julli bi baaxul nee leen ko stop te mu jaar gauche ndax ab yéeféer la ndax liñ ko santoon li nga xamee ne moo ci nekk premier point essentiel bi muy julli mu ngi mel ni tey rek nga am sa xaalis bu bari ne da ngay te doo fondement boo bu la bu la boo amee euh, euh, sa feuille bu def dessin bi. Mhm. cinq étages yow leer na la cinq étages mënul taxaw ndax amoo fondement. julli mooy fondement ab jullit yowmal qiyaam suñ borom subxanahu wa taala su ko xoolee mu baax ajana su ko xoolee mu bon duñ xool koor duñ xool leneen directement safara moo tax kiy julli weeru koor ba weeru koor borom xam-xam yépp dañ ko àtte ne ab yéefeer la. parce que julli du saison. su ma la déggee aussi du borom daraja ji du ko mboboom oyof moom ñépp daal julli daal. ñëpp a koy ñëpp a ci yem ñëpp a ci yem ñëpp a ci yem doo am am alal ba ne julli wàcc na ma doo ñàkk-ñàkk ba ne julli wàcc na ma te boo am alal am alal ba ut si jaada or du si julli sa julli sax baaxutut yaa ñëpp a yem parce que da ngay toroxlul suñu borom ndax julli boo demee ci laxdari mooy da ngay torox lul suñ borom subhaanahu wa taala te nga yaa ngi am audience ak suñ borom subhaanahu wa taala nga war a am audience nag ak suñ borom ne damay dagg audience yooyu ba yombal xaar nga bëgg a am ak moom audience du sotti kon julli du weeru koor ba weeru koor te sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni al ahdu allazi baynana wa baynahum as-salaat fa man tarakaha faqad kafara yonent bi dafa ne miir bi nekk suñ diggante barrage bi nekk suñ diggante ak yéeféer yi mooy julli boo nekkee ci camp julli bi boo julleetu rek dañ lay tëmbal ci campu yéeféer yi parce que fa nga bokk dañ ñoo rax waaye bokkoo fi fële nga bokk loolu Buxaari la soo demee ci muslim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxaat ne baynal muslimi wal kaafir tarku salaati diggante jullit ak yéeféer lenn rek la mooy julli lenn képp la mooy julli. loolu boo demee ci muslim na ko fekk te nag gis nga ku mel ni maane julliwuloo julliwoo ba weer koor jot nga julli buñ la xamalee ne la est-ce xam nga ne julli farata la nga ne waaw lu tax nga bàyyi ko nga ne daf maa neex kooku dañ koy rey su dee ngir imam Malik tusubaar la ko wax bu tàkkusaan di jot ñu dagg bopp bi. kon dañu ñu war a dagg seen bopp. ak <laughs> ah, bari su fekkee dafa rëccu dafa rëccu xam na ne farata la nekkutoon ci yoon wi mu bëgg a tegu ci binaar yooyu suñ borom subhanahu wa taala ne yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qul lilladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad loolu boo demee ci surat numéro huit muy suratul Anfaal mooy ay fanweer ak juróom-ñett yàlla ne ñi nga xamee ne day ay yéeféer lañu woon ñi nga xamee ne daawuñu julli ñi nga xamee ne weeru koor ba weeru koor lañuy julli ñi nga xamee ne ajjuma ba ajjuma lañuy julli ñooy kat bu ñu réccoo tuub bëgg a tegu ci raay bi yàlla baal leen li paase yàlla du yam baal seen dafay cuub seen yu bon yi def ko mu baax bu amoon mille bàkkaar day mujj nekk mille ci yàlla. yàlla bari yërmande trop macha allah. waaye suñ borom subxanahu wa taala nag yow jullit bi nag tuubal jëm ci suñ borom subxanahu wa taala ya bu sell yaa ayyuha alladina amanu tuubu ila allahi tawbatan nasuha boo demee ci surat numéro 66 muy mooy ay juróom-ñett kon mbokk yi ñun ñëpp nañ tuub dellu ci suñ borom subxanahu wa taala ni loolu ba tey boo demee ci surtout nuuri mooy aaya fukk ak ñett kon ñun ñoom nañ tuub dellu ci suñu borom subhaanahu ku mel ni maa nekk nga xam ne du ñu julli lu dul woor koor lañ ko bàyyi ndax atte ku dul julli lu la wallahu taala alam moo ne day oustaz euh, baayam di xalifa cheikh day calaw bàyyi la ci moom cheikh Makhtar macha allah daraja ji man cheikh day calaw sama maam maay xalifa gis nga fajar gu nekk waxtu julli wu ne moom taalibe yaay buuxante ca jàkka ji. macha allah wallaahi alazim. yal na yàlla guddal fanam te te may ko te may ko wér. amiin ndax loolu mooy oyof. yal na yàlla guddal fanam. muhammadun xubiyat bi nuuri tinatu. kooku mooy Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam. nga xam ne suñ borom subhanahu wa taala bala muy bind aadama nga xam ne suñ borom subhanahu wa taala bala muy bind lawxu nga xam ne suñ borom subhanahu wa taala ba muy bind bala muy bind xalima bi nga xam ne suñ borom subhanahu wa taala mooy rabbu samawati wal ardi bala muy bind asamaan ak suuf ki njëkk a bind kooku sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Muhammadun lam yazal nuran min alxidami kooku mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi Muhammadul Busayri di wax naan suñ borom subhanahu wa taala bam fi fi nekkee moom kese bëgg ku ko wéttali lan la bind leeru Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu def ci tajalli tajalli boobu mu def ci leeru Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci leer googu ci la bind lumoo lumoo lépp loo fi gis rek ci leeru Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam niñ ko bindee muy asamaan muy suuf muy ajjana muy safara muy lu neex lu naqari lépp loo xam ne yaa ngi ciy mën a teg sa bët ay li mën a teg sa bët ci leeru kan lañ ko bindee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammadul Hakim bil adli zu sharafi kooku mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy abal qaasim moom mi waxoon ne kii di Fatima di sama doom ma gën koo bëgg ci sama njaboot bu sàccoon ma daal di dagg loxo bi moo tax Mouhamadul Busayri ne Mouhamadun xaakimun bil adli zu sarafi ndax moom kat waa ahlul bayti ak ku dul ahlul bayti ñoom la bokk yemale ci kalamu suñ borom subhanahu wa taala da ngay def dëgg mu andi ceeg yow nga def ñombe mu atte la attewu koo xamee ne dafa def ñombe moo tax mu ne Fatima mii bu sàccoon ba dagg loxo bi sallallahu alayhi wa sallam muhammadun maadinul in'ami wal hikami kooku mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne lépp loo bëgg ci suñ borom subhanahu wa taala ci kan nga koy ñaan ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax suñ borom ne ku julli ci moom benn yoon suñ borom subhanahu wa taala julli ci moom fukki yoon ku julli ci moom fukki yoon suñ borom julli ci yow téeméer yoon ku julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam téeméer yoon suñ borom subhanahu wa taala julli ci yow junni yoon ku julli ci yonent bi junni yoon sa mbagg ak mbagg yonent yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñooy andi diini solo di dugg biir firdawsi kooku mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax Muhammadul Busayri daal di wax ne kii kat moom mooy man ndaxe moom mooy man ndaxe yi nga xamee ci la ñuy denc ay xéewal ci la ñuy denc lépp loo xamee ne fa nga bëgg mu ballee fa génnee fa mu nekk teraanga fi mu ballee mooy ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf. macha allah la fondation El Hadji Moustapha Gueye baytul yi ak association internationale Dabakh ñoo leen woo ci deuxième édition un immigré ndagu ñu àddu ñun dox dugg ci biir kër yi xool suñu mbokk moodu moodu yi nga xamee ne crise bi laal na leen ñu ànd ak ñoom gunge leen ci weeru koor yi di weeru yërmande ba duñ ko yëg te suñ borom subhaanahu wa boo jëfee benn bu baax dala koy fay fulal la ko dencal la ko nag ci magasin boo xamee ni bu am sécurité la wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allahi kon nag mbokk yi man al oustaz Abdoulaye Saïd Gueye ànd ak la fondation El Hadj Moustapha Gueye baytu zakat yi ak association internationale Dabakh ñoo leen di tàllal loxo ci un immigré un ndogu ñu ànd ñun ñëpp dimbali suñ mbokk yi nga xamee ne ñu ngi dans le besoin képp koo xamee ni bëgg na cee barkeelu numéro postpay bi mu ngi nii boo ko dugalee nga yónnee ñu reçu bi